jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaar di leen bégg bu baax a baax tey ji nag le 12 ñoo ngi fii ci stade euh, arène nationale bi sëñ Modou Niang woo ñu fi ci journée boo xam ne journée bu neex la mbokk yi mboole ñaari xale yoo xamante ne ay ndaanaan lañ kii di Batista wàccee Pikine ak ki nga xamante ni mooy Alioune ñu Nder mbokk yi ñoo ngi ñu doog a yegg si waaye nag làmb ji tey làmb ju neex la na nekk ba tax na dañuy bëgg a dem xoole ki nga xamante ni mooy grand combat bi dox ci diggante Batista ak ki nga xamante ni mooy lépp loo xamante ne dafi am ci làmb Wassare Lamb tey dina leen ko dëgtal fii ci arène nationale maa nag sama cameraman bu ñaawul bi Adama nañ dem xooli li fi am tey fii ci arène nationale. sant maa lay fay. ci loo ne. sant yàlla wér. Eh, gëj na laa gis lan nga waaw maa ngi fi maa ngi fi rek du di laqatu. comme tamit eh, yaa dafa bàyyi lamb wala. non bàyyi lamb boo ma xoolee xam ne bàyyi ma lamb. ñàkk am ku ma bëree rek kuñ la jox boo demee xool ñaari fa ñëw ne garaawul. xam nga loolu moo tardé lamb ji quoi. nga a bëre gars yi di la daw. kese billaay wallaay taalaay. est-ce que promoteur yaa ngi seet si la proposer. bëri na promoteur yi meex ay combat mais instant bi dafa jot ma bëreeg ñi kaw ku si mel ni brise de mer nañoo ñu bëre amul combat aw ma combat maa li ñaa gaa yëpp dañ ko fi bàyyi man ñëpp dañ ma fi bàyyi na ma may sens su bëre lamb ji nañ bàyyi mooy doonte bi ñun ay xale lañ nañ ñëw ñu bëre suñu biir voilà loolu la quoi. mais tey dinaa Mouhamed yàlla na ko yàlla may ndam. waaw yàlla na ko yàlla may ndam bi jaay Seydina Mouhamed. mais muy bëre xale boo xamante ne ndaanaan la naka ngeen ko yabee te no moom tamit ndaanaan la de. ko naataal. wax ndaanaan la parce que man suy bëreeg man ni may laa gëm na ndaanaan la parce que maîtriser ma yombul bu soobee yàlla maa ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla yàlla may ko ndam. jaajëf kontaan nañ merci beaucoup. Alioune Mbaye nuyu naa la. waaye fii la ba ñu lay. loo nekk waaye sant bu baax. mais ñu gis la tey. na ngay waaw li ñu ñëwee gars yi eh, dañu ñëw dal. parce que ñoom ndam rek la ñu soxla. comme fu ñu jigéen dafa sori. waaw lu nu suñu xel may rek pour jàpp ne war nañ see mën a am ko def. mais da ngaa a simmeeku lan la. non man mbërum mbapat laa. si mbapat laa moo tax man xamuma li xam tegalee yére damay simiku yàgg bu yàgg mais damay teel a simiku rek. mais naka nga gisee sa tuus na tuus bu neex yëngal stade bi yëpp. tuus na lu neex. tuus parce que moom champion la quoi. waaw mais maa ñaan yàlla may ma ndam si kawam. waa mais naka ñëw da ngay xeex wala da ngay bëri. ndax ñëpp xam na la ci bëri. non ñun moom wax la tey. gars yi xam na ma si bëri mais man fu may ñëw si làmb du ma xam lu ma indi. am na combat nga xamante ne si bëri lan may lan may yaakaar ma ñëw indi xeex combat bi mën na demee noonu lu mu laaj rek ma def ko incha bu ñuy xool mu la xaw a tuuti relance. garaawul man ma arrangé. parce que bëri na ma ak ay njool. bëri na ma ak ñu ma ëpp man loolu ragalu ma ko. man làmb mbër du ma calculer li li mu yor man li yor rek laa calculer. te bu arbitre sifflé incha allah ni nga xam ne man li am rek moo ma baax na kon ba ci jërëjëf waa kontaan. balañ moo féete à wala boog balañ nañ jàkkaarlool mbokk yi. Balxiis daw lu mu da koy daan oh la nga maye daa bëri la ko la muy def xoolal xale la muy def xoolal maa gis la muy def. laay xool ko kii athlète la dafa daw jël tànk bi kal ko tegal ko siège yenn na entraîneur ba yenn na ko waaw xale yi dañoo liggéey xool ma supporter Fils maa ngi lay fay moom fii. yaa ngi tey tey fi nga waaw fi ma génnati. fi nga génnati waaw man nii laay man euh, euh, lii suñu yëf la yow ñu xam yow xam nga ne man ñun ay géwél lañu. yëfi bu naree yem sax ñu ñu soppi ko leneen. <laughs> mais namm naa la. maa la roog moom Fils. mais euh, fan yi naka nga gisee làmb fan yi làmb dox na. waaw macha allah làmb ji mi ngi yëngatu nag macha allah li am solo mooy làmb facteur de développement la. tey xale yi koo ci gis lu mu tuuti tuuti am na tey loo xam ne jël na ko dugal na ko seen biir ka donte benn saaku ceeb la wala benn kees yu dul yi sax jàppale ko papaam te loolu ci création d'emploi la bokk Serigne Modou mooy école bi mbëri ñi fi dégg yëpp ñëwee champion yëpp Serigne Modou ci Serigne Modou lañ jaar moom toujours day promouvoir xale yi nga xam ne kenn xamu leen fexe ñu xam leen te loolu c'est très important moo tax làmb ji tubaarkàlla yàlla la ñu gars yi gën a jàppale sponsors yi sponsors yi dañ gën a ñëw jàppale promoteurs yi bu ji daal di dox mu seetaan ñu gis ne combat yi taxaw bari na ñu gis ne combat yi taxaw bari na te neex na ban combat moo ci gën a neex. combat yëpp ma neex parce que léegi ñun ñun ñun amatuñu amatuñu mbër ñun mbëri suñuy doom lañ ñoom ñëpp combat yi a neex. waaw kontaan naa ci yow. Ablaye Wade gëm looloo waral loolu ñëpp suñuy son bi la waree suñu bopp ndax ñun nëbbu wuñu dañ ni fàng looloo waral loolu. ñu tuddee la bis nga delloo ko Karim Meïssa Wade waaw mooy li ma la wax rek delloo mbattu jandaa la ñun li ñu doonoon démb moom la ñuy doon tey ciment la ñu benn yoon la ñuy tooy. looloo waral loolu. sa diggante ak Alioune Ndiaye ba nga def ko invité d'honneur. waa Alioune day nit ku baax yiw yaru yaatu am yëg-yëg ci doomu aadama man Papa Ndiaye Demba loo mën a def ci adduna nang ma yëg soo ma cofee ma wadd waaye boo ma yëgee rek yaa ma moom. damay faral dégg wolof naan mbëggeel euh, góom la sunguf yëpp ak reenu safa moo koy faj. barki yonent yàlla moomu. waxal yaay sama mag waaw loolu am na kenn du yow kenn du yow. ñu jaay ma ko bu baax kii mooy Papa Ndiaye moom la ñu euh, dara yàlla bisu tey mu ñëw ànd ay mbokkam ànd ay xaritam waaye tam ànd ak ay ami jaamam jël bisu daal di koy delloo ki nga xamante ne nii moom moo di euh, Karim Meïssa Wade waaye tam jël président euh, groupe Africa 7 di Alioune Ndiaye daal di koy ndaylee bis bi bisimilah ay sama gars let's go Caatu Yoff nuyu naa. yaa maa ngi lay fay. ci loo ne. sant sant Serigne Touba bu wér laa nekk. gëjoon nañ la gis. oui gëj nañ gisee kay. oui euh, gëj nañ gisee trop mooy loolu. mais sa combat dafa mel taxawoon na de. waaw sama combat maa euh, laay ko de amoon nañu ko bëggoon quoi mais si man la yàqoo franchement parle. la moo tax mu yàqoo ci yow. parce que laay ko de bu ma ko daanee du ma yóbbu fenn moo tax ma bàyyiwaat ko quoi parce que maa ko mën moo tax. yaa mën laay ko de. maa ko mën waaw. mais Caatu Yoff mi dëgër na fit de. laay ko lamb boole ñu bilaay walaay taalaay. yaa ngi moom bëggu leen nga ne yaa man laay ko de. non xam nga sama palmarès boo si jëndee 4 laay ko de doo am doo am combat yooyu nga def 14 combats am 13 victoire bëree 8 grands combats ah ñàkk benn bi xam nga waroo bëree boo xam ne 3 grands combats doon bëree mooy loolu. mais lan moo taxoon nga jëloon avance am. non dama xam nga lamb yi balaa ngay jël lamb da ngay xool soo ménagé moo doon jëlee avance bi pour ma bëree moom man combat ba arrangé wu ma doon bàyyiwaat ko. combat boobu arrangé wu. Oh. ban combat moo la arrangé fi maa ngi xaar combat bu baax euh, ah, am Feu Rouge amagul combat Wouly amagul combat ambulance amagul combat ñett ñooñu ku ma si jox ma bëreex moom. loolu nga tànn diisul <laughs> xoolal xoolal sama sama carrière rek. non dama ne ba xam yow li nga daan diisul. ñi ma xam naa sa carrière ñi ma daan ñoo gën a baax ñooñu. Ah. Zambala moo dàq bëri ñoom ñëpp laa ko yóbbu. Bébé Diouldé ma daan barki Demba Ndiaye moo gën a baax ñoom top 5 laa ko yóbbu mooy loolu. fi mu toll nii daal ñooñu ñoo la gënal fuuf ñooñu laa bëgg parce que combat bu bu am rigueur laa bëgg quoi mais laay goote yi. naka entraînement yi. waaw ñu si ko am ñu ngi taxale ana sunuy booy xam nga sunuy rakk ñuy bëre ñu leen ñaanal ndam ñoom ñëpp mooy loolu. jaajëf kontaan nañu dégg nga Wassare. Barista nuyu naa la. waaw maa leen di siyaar. ci loo ne. sant ak muñ ak moytu. mais li nga tuus neex na. waaw dañuy taxalee ah, gi foo foo ko jëlee. dégg gi foo ko jëlee. juddoo Pikine nag dana dégg waxatuma la ak yoroo fi màggee. mais tey nga am combat bu mag da dajanteeg ndaanaan muy Alioune Mbaye Nder naka nga ñëwee. waaw ndaanaan ku li fàttali la ñuy taseel. moo tax waajal nañ suñu bopp su côté yëpp xeebuñu ko benn yoon xeebuñu ko si dara mais ci kàttanu yàlla liñ jàng buñ jugee si biir nañ ko tari incha allah. dama ko seetaan mu daan ay xale yu bari xale bu nekk yoon boo ñëwee Alioune Mbaye Nder fere la fere na la est ce que xam nga xale na ko jot naa ko am na combat yoo xam ne xool naa ko visionné naa ko bi combat bi taxawee mais nekkul woon mbër boo xam ne maa ngi doon suivre ak affaire yooyu noonu quoi champion la nag dëggantaan mais dañ koy jox wàccu waayam rek waaw waajal. lan nga jàngee ci moom bi nga ko xoolee ba noppi lan nga jàngee ci moom. ni ma jàngee ci moom daal mooy ñemewul kese amul leneen. dama koo laaj léegi mu ne ma xamaguma lan laay andi waaye mën naa jeexee ci xeex mën naa jeexee ci te loo andi lu nekk bu fekk daa xeex dana la duma. waaw moom xaaruma ko lu muy indi moom man li may indi laa lijjanti bu laajee xeex maa xeex bu laajee bëri maay bëri si kàttanu yàlla di ñaan yàlla may mën ndam lu kawe sama njoot ci barke Mouhamed mais su ma déggee say wax nee nga ñemul kon da ngaa na xeex moom waaw mi lu mu laaj rek lu mu laaj rek xam a ragal da nga xam ci bët lu mu laaj rek bu duggee ci biir géew na mu dëggal boppam nga xool nga da ngay xool beneen beneen yoon mais boo xoolee bëri xool muy raf yaa ma gën a xam daal boo duggee ci géew bu rafee jàpp nañ da nga war a yàgg na yàgg loo gis rek xamal ñu li ma la waxoon la yow jàppal li ma la waxoon la rek waaw baax na ba ci kanam ci kanam waaye dolli siyaare. waaye maa roolu bëri alliance ba. tawfeex xëy. waaw mais gars la gis ne foo ne. non maa ngi nii maa si koom waaj di préparer. dama bépp bis mi lay xaar quoi. ba li ngeen def bépp bis mi jël papa booy ji ne génn ci. xaaruma pour bëreeg bépp bis mi xaar mu daan. naa ne day daan laa lay wax bindal alliance Baldé man maa ko wax bépp bis xaar mu daan. nga xaar ko mu daan pour lan nga bëreeg moom wala. isa xam nga ne si defet du ma bëreeg yow. man damaa toog si bu daanoo du ma bëreeg moom du ma tudd turam comme moom neen du tudd sama tur. da nga bëgg Papa Boy Djiné Papa Boy bu daanoo doo bëri ak. en ma la mën a wax mooy Bébé Bismi day daan te ku jugee si defet du ma bëreeg yow ku daan laay bëreel. su Bébé Bismi daanee yaa ngi Bébé Bismi la. Bébé Bismi sama frère la sama xarit la man ak moom samedi dimanche la bis doxul si diggante bi. léegi boo léegi boo bëriwul ak Bébé Bismi daal baa ma jéem a xaar ñoom Alioune Seye Junior Alioune Seye 2 ponkali da iri waalo moom du ma bàyyi si ñoom. 3 2 1 la mais Alioune Seye am na combat kii la jël Tidiane Faye. ma xaar Alioune Seye Junior Papa Dia. waaw Papa Dia laa Papa Dia. moom moo jël Tidiane Faye. Alioune Seye jël na Issa Pouye. ma dem jëli match revanche comme amul combat. Ah. waaw. waaw du ma bàyyi. waaw non non. ci noonu lay demee wasaare kese rek. ci diggante Jaraaf Youssou Ndoye abi bi laaj na leen ba xam pare ngeen Bram mbokk yi moo ñëwoon ginnaaw Jaraaf Youssou Ndoye lañ jàkkaar lool moo ngeem moo ngeem lu vert rouge bi oh, Jaraaf Youssou Ndoye ku boobu dal na de Bram dafa bëgg xeex Bram dafa bëgg xeex saabu Jaraaf doore mu ko Jaraaf Jaraaf Youssou Ndoye Bram diggante yoo ngeen ne baadu la doo nga daanu atul atul dina la doo daan na ko takk na daanu Jaraaf da daanu. Pram daan na ko Pram daan gitaar lii lan la waaw lii lan la waaw Pram Jaraaf Youssou Ndoye waaw Pram lu mu andi nii dëggal xale fi mbooloo làmb gi noonu cee làmb Bram daan na ko jël bu gaaw dafa xeex ak moom daw juwaan moom takk ko tegal ko 16 mu jaaxaan. waa gis nga ne ñëw xalamal ko rek waxoon naa gars ma ñëw xalamal ko xolam waa ànd see ñoom père xës père lim père dégol ñëpp ñu ñëw accueillir ñu père Bourkhane ñëw jàpp si yàlla suturaal ñu may ñu ma woo si xeex muyu ma ma juwaloog moom waaw loolu mooy bëre bi waaw non non même pas ndax li topp sama ginnaaw tey mënu maa def faute tey ñëpp génn nañ waaw li ko dalee manko jokkoo mango ji ginnaaw raay ay see digg bi marché bépp kenn desul barki yonent bi waa daral ñëpp non dara bokkuñ dara waaw bi mooy suma deuxième combat deux victoires waaw na ma gars yi jël rek incha allah samay père ni ñoom père xës ñoom père lin képp ku ñu laam boole la incha allah dinañ bëre moom jërëjëf kontaan abi baa ngi laaj ay jugeem ci diggante Thialé Bib Diop mbokk yi Thialé moo ñu woon ginnaaw Bib jaakaar lool Thialé écurie Fatick Bib Diop Bosco Sow Thialé moo ñu woon Calle moo ñëwoon gannaaw Bib Diop lañ jaakaar lool Bib Diop mbokk yi moo tent bopp bi Calle Bib Diop. Calle ak Bib Diop. ay ji lamb Ousseyn borom Wassare. xale yaa ngi noonu. Calle cokkaas na léegi. ndeysaan Calle moo ñëwoon añ nañ ko dañ koy baax. waaw léeg-léeg dafa jël coup Ndéné. daa jël coup. Ndéné Talle daa jël coup. ceeb bu sew man coup yu sew bi tubaarkàlla ceeb bu sew bee ma ko gën eh, bët ba. xanaa xamoo lu waaye mën a mën a mën a bëre mën a ah. lépp loo mënoon a bëre da lay def. da ngay xeex. wallaay ndeysaan Ousseyn. waaye jël na coup bu metti moom Talle. jël na coup noonu. waaye nag Ousseyn am na loo man rafetlu wu ma ko ci lamb. muy lan. képp ku sa mbër daan rek nga ànd ak say supporter dem ñibbi loolu bugguma ko ci làmb. waaye xale yi bokk yow yow yow ndeene. tubaarkàlla xale yaa ngay ñibbi lii laa lay xoolal gis nga dañuy wane seen doole. daaralul journée. amatulul lenn. waaye Ndoye tubaarkàlla moom moo coordonné nay xool xale yi am mbooloo di leen mujjee bëreloo. looloo yoon. looloo yëf. mbokk yi ñoo ngi fii ci huitième combat bi. ci diggante appliqué ay dara. appliqué mbokk yi moo ñu ginnaaw. ay lañ jàkkaar Malick Ngom appliqué ay dara malik moo ngi laaj ay jugeem ci diggante appliqué ak ay dara arbitre bi sifflé na appliqué ay dara ay dara ngi dox ci kawam waaye appliqué mbokk yi moo ngi moo ngi si gën a jon écurie benn braak mbooloo ay dara écurie Yoff ay dara appliqué Aidara appliqué appliqué ngi demee wet cokkaas na léegi waaye dalul moom appliqué Aidara tibb na suuf daw na jëlante appliqué doon na ko jël Aidara mbëkkanteeg moom appliqué ngi rokkas ci suuf sigi na daa bëgg mu sigi eh appliqué <laughs> appliqué Aidara xale yaa ngi doon ay pékil yu ci suuf Aidara appliqué. appliqué à gauche Aidara à droite am na benn loxo ci ngemb waaye Aidara mbokk yi am na benn loxo ci ngemb moom tamit Aidara appliqué xale yaa ngay xeex coup yi bari na Aidara appliqué appliqué ngi dóor moytul fàtte sa Aidara appliqué Aidara appliqué na ko Aidara Aidara ba daanu lu xew lan moo xew plaqué na ko eh! lii daal la lii daal la lii ay jugeem génn leen ci digg géew bi appliqué daan na Aidara appliqué daan na Aidara appliqué daan na ay dara appliqué ngi noonu waaye combat bi tax na suuf appliqué daan na ay dara bàyyi ko mbokk yi spécial baa ngi noonu Milkzo toj na nen waaye daa tojul toj na nen yàq cuuj yàq omelette ak leneen la cee ànd mbokk yi Milki Zo la Milki kii Kër Massar Mboyo waaye moo ngi dajeeg mbokk yi fëgg moo ngi dajeeg fëgg la école olympique bu Ngor fëgg la Milki Zo ay jijëm laaj na Milki Zo ba xam laaj na Feugeula ba xam pare na abi bi sifle na Feugeula na juróomi baaraam am lu muy waaye Milki Zo mbokk mooy am lu muy leemu Feugeula ñu woon ginnaaw kàbbaana ñoo ngi lewaatoo ci diggante Feugeula Milki Zo Milki Zo lañ jàkkaarloo Feugeula moo ñu woon ginnaaw Feugeula wet Feugeula Milki Zo Feugeleu Milkzo Feugeleu Milkzo Milkzo dox na ci kawam Milkzo dox na ci kawam maa ngi esaat kooku di ma woo na ko bàyyi maa ngi esaat Feugeleu Milkzo Feugeleu Milkzo Feugeleu cokkaas na léegi gauche droite Feugeleu dañoo bëgg a xeex jaw na jël ko ñoo ngi xeex Feugeleu Milkzo Feugeuleu Milkzo xale yaa ngi xeex gauche droite waaye Feugeuleu daa mel ni baax na da koy xool Milkzo daw na sàcc ko waaye dugub ba baaxul dugub bi baaxul Milkzo Feugeuleu cokkaas na ko léegi eh, Milkzo atul Milkzo Feugeuleu bu ay pexam sottee boo saagoonul doo mu daanu dina ci am yoon Feugeuleu Milkzo ñoo ngi xeex Milkzo nee naa la ngay du booy xeex da xool. waaye boo bëggee gëm bëgg a sànni ay coup boo xippee la gis du la neex Feugeula Milkzo Feugeula doon na ko guus léegi mu dal ak droite Milkzo ba dul la doo nga daanu Milkzo Milkzo moo koy xool jàppante bi la gën a bëgg cey làmb combat spécial baa ngi noonu Feugeula Milkzo kor nañ ko door na koy per kit bu dal baadu ko door mu daanu baadu ko door mu ñoo ngay rokkoo si suuf Feugeuleu Milkzo fàq na ko Milkzo fàq na Feugeuleu Feugeuleu bañ Feugeuleu Milkzo xale yaay noonu ci digg géew bi jàppante nañu Feugeuleu Milkzo Feugeuleu dafa mel ni dafa bëgg a tenter action Feugeuleu Milkzo xale yi dañoo waane bëre sëq na ci gaña gi moom Feugeuleu Milkzo nga dóor ay rokkas Milkzo ngi doo ay rokka si suuf waaye Feugeuleu jàpp na ñaari loxoom ci ngemb su loolu maay Milkzo sama loxo bi dama wut fu ma ko yor waaye booy xool Feugeuleu Milkzo jàppul ñaari loxoom yëpp ci kaw baadu la fàq mbala mu wéyale la tey làmb Feugeuleu Milkzo sëggu na jël na ko tegal na ko sees da woon daan na la daan na la Feugeuleu Feugeleu moo ngay joow waaw waaw waaw waaw Adama jëlee ba public daan na ko jël bu rëy ma waa olympique. def Adama jëlee ma kooku daa damm 16 bi jëlal ma xoolal la mu def xam nga ne lii rafetul. mag mu toll yow mu fekk leen sa biir nawle lii biñ ko defee yàggul nga jël séese damm ko waaye dina la coûter cher <laughs> doo ko defati. mbokk yi grand combat yi grand combat baa noonu drapeau Pape Aïda Ndiaye ci diggante Batista ak ki nga xamante ni mooy Alioune Mbaye Nder Batista mbokk yi moo ngi ci digg géew bi am na benn lekkat bu mu def ci digg bopp bi dëgg na ko mu toj Batista a ngi noonu dem di jël photo Batista Alioune Mbaye Nder pare na bu yàgg taxaw di ko xaar mbokk yi Batista abit baa ngi koy xool loxo tàllal loxo yi protestant bi du xool nii na wala nii nul Alioune Mbaye Nder la ci wàllu bëre waaye mbokk yi ci diggante tànk Alioune Mbaye Nder yi Batista abit baa ngi laaj ay jugeem laaj na Alioune Mbaye ba xam pare nga Batista Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder moo ñëwoon Batista lañ jàkkaar lool mbokk yi grand combat baa moo noonu journée Mouniang production Batista wàcc na ba tolloog moom Batista moo ngi demee wet Batista teg pied gauche Alioune Mbaye teg pied gauche Batista newoon na ma su ma taxawee xool ko ci biir su nekkee ragal na xeex ak moom su dëgalee boppam danga ba dëgg dóor na ko daw na jël ko daan ko daan ko oh Batista da koo doo ku dafa doo Alioune Mbaye nee na xew da koo doo bu dal Alioune Mbaye daw yooru mu sol ko plaqué ko plaqué ko mu jaaxaan Batista daan na Alioune Mbaye Nder comprendul il n'a rien compris Alioune Mbaye il n'a rien compris Batista Batista daan na Aliou Mbaye ne vite fait ko def dana xa abi dafa sifflé mu dem ak moom wet cookaas ko gauche droite Aliou Mbaye ne mu doo ko bu dal Aliou Mbaye daw yooru mu siggeeg moom añ ko suuf doo ko bi Aliou Mbaye ne mu yeggali ko moom Batista daan na Aliou jël bu leer.